séjour fële prison wu rëbës parce que xam nga boobu du sa premier séjour carcéral oui. parce que yow tëjoon nañ la fële nga xamante ne moom mooy en 2012 2013 29 jours Fatick euh, prison Fatick sa coow ak journaliste bi di di di di Bokar Bokar Alfadjri euh, bi nga duggee dama la lire ci l'observateur nga ne def nga presque ñaari AVC ñaari attaque Euh, dama la bëgg a wax d'ailleurs damay préciser sama dugg kaso boobu ak Bokar Dieng daf ma sosaloon comme nee naa la dama tàngoon diine jamono yooyu xam nga buñ la sosalee. non après am na xidma à l'amiable yéen ñaar seen diggante yow ak yow ak yow ak Bokar. waaw waaw mm-hmm. Mm-hmm. nga ko dundee. non c'est-à-dire que ñaari coow yi du benn. les quarante ou quarante cinq premier jours nga tëdd. xam nga les les les les détenus sont les personnes les les mieux informées puisque dañu am jot de ce pays là dañu am jot da ngay am télévision sa néeg da ngay am sa rajo transistor journaux yi dañuy dugg internet rek nga ñu am puisque on t'interdit d'avoir euh, le téléphone donc tu passes toute la journée daanaka ci information xam nga émission yi yëpp xam nga seen horaire muy ci télé yi muy ci rajo yi voilà journaux yi daawoo liir sax amoo woon jot ti kuure mais journaux yi da ngay obligé lire ko nga toog dégg ñu lay matrake di la sosal di la décrire comme un monstre di la déshonorer te nga am famille am ay mbokk am ñu la bëgg mais c'était très dur c'était trop dur te yow mënoo tontu puisque xam nga man ba affaire bi amee ba may génn kaso nii benn sénégalais dégguma ma wax ci ŋaanguma ci bi ma génnee kaso laa soog a commencé wax ton wax yi ban moo ci doon gën a metti wax yëpp a doon metti parce que dañ naan way gis nga waa pouvoir bi dañu dañu dañu fuuy ba xamatul lu ñuy def foog nañ ne euh, ils peuvent tout se permettre ay yu yu demee noonu Eh? ñi ma xamul sax naan wooy kii dafa bëgg jigéen nangam ak nangam te yow nga gëm yàlla gëm ne yow boo xesee ba ba mës a dégg alxayri takk jabar boo njaaloo bu doon ci nguuruk islaam dañ la war a rey ñu mën a xalaat ne man non seulement dinaa njaalo en tant que musulman ñu mën a xalaat ne non seulement bu ma demoon ba nar gàddu bàkkaar bu tol noonu duma waxtaan ak nit ki jubook moom te loolu jafewuma woon ñu mën a xalaat ne damay ñëw ne ko dama bëgg a tëdd ak yow mu ne ma déedéet d'accord ma rek ma tëb ci kawam bës ko rek tëdde ko comme un animal. et puis yow ajaa di yow Adja la am alors que yow ajaa yoo xam nga ne dëkk bii ni mu mel xale yu jigéen yu jekk yu taaru ñu ngi fekk seen appartement di def publicité li ñuy soxla ba def loolu. am na lu ma ci yàlla dénk as tuut nga mën a dem ci sa kër ñu toppatoo la nga génn xale boo xam ne boo ko gisee yéen gis ngeen ko ci tele yi amul dara yàlla dénk ko dara loo xam ne mën na yëngal góor du ma décrire xale bi puisque xale la duma ko décrire mais loolu rek laa ko mën a tënk nga ne xale boobu ngeen nit ñi mën a gëm ne xale boobu maa tëb ci kawam forcé ko pour tëdde ko gis nga gis nga Adja li nekk ci mbirum viol il faut ma am occasion waxtaane ko xaw ma ci ban émission lay ne mais Sénégal a ngi taj ndax affaire viol kaso baa ngi fees tel ndax affaire viol les chambres criminelles à 70 pour cent ñu ngi may dégg juge yi affaire criminelle yi ñuy juger c'est le viol. d'accord alors très rapidement ban métit nga dund ci biir kaso bi mu waral nga tem bay presque bay flanché bay am AVC wax nga sax ba wax wax. xam nga yooyu yooyu bu amee nga am mettitu xol di dégg di mu lay metti na ñu lay matraqué ñaareel ba mënatoo nelaw. amunatoo woon nelaw. non mais tu peux pas dormir tu peux pas trouver la somai doo ko trouver yooyu yëpp bu boolee nag da ngay affaiblir sama tension artériel éeg ce qui fait am na ñaari yoon yoo xam ne je sais que j'étais j'étais au bord de l'AVC dama obligé comme dans mes lectures j'avais lu que il fallait verser un peu de sang ma jël benn pingu bu nekkoon ci sama chemise bu bees bu ma soxna si jëndal dugalal ma ko daal di teg sama baaraam rek jam tak tak tak mais bizarrement am na fu ma ko wax normalement boo defoon nii dafa waroon di égu égoutté wu toog toog toog toog dafa giclé comme boo ñoroon nii bës extrémité bi dafa giclé ne car car car donc dama def loolu ba pare wéeru di sabal nag sama borom nekk ci turu yàlla yi nekk di tagg sama borom sur une quinzaine de minutes ba ma xaw a dal mais à un moment ne vraiment foogoon naa ne euh, samay buumu xol dinañ dagg sama xol daanu sama biir dënn alors une nous reste deux minutes DG euh, bi nga demee ci kanamu ki nga xamante ne moom mooy juge chambre criminelle mu bàyyi la ndax faute de preuve mais rebondissement dafa am ndax yow nee nga da ngay porter plainte ndax da nga gis ne ñaari kilifa kenn ki mooy kilo la conseiller ba taxoon nga oo famille victime bi keneen ki. déedéet déedéet déedéet du kooku de ah déedéet ñi ma bëgg porte porter mooy yaayu xale bi ak euh, la féministe Gabrielle Ka. mais da nga wax ne kabal aussi dafa am. non non non kooku gis gis nga loolu bu ko kenn liyee gis nga ka ma conseillé woon. sama mag ju baax la sama intérêt rek la bëgg musuma ko tudd ci lu ñaaw te xam naa li ma conseillé woon bu bu affaire bi amaatoon ëllëg it bu ma amuloon expérience bi dinaa ko def puisque musuma conseillé lu baax mais kabaat politique non kabaat politique dama dama leen ne dama ne ci journal bi ki ko def c'est un membre de Benno Bokk Yaakaar mais c'est pas un membre de l'APR d'accord moom moo laxasu ci ginnaaw histoire bi alors que ki ma conseillé un mais à quelle fin à quelle fin cest diir dire kii laxasu ki nga naan kilifa Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci ginnaaw ba andi coow li yëpp lu lu lu tax moom bugg am taxawaay boobu. kooku responsable politique la yor partem ñëw Benno Bokk Yaakaar ci koñam noonu fi mu dëkk du ma wax koñ bi puisque boo wax koñ bi ñu koy xam ci koñam noonu euh, dafa am benn nijaayu xale bi boo xam ne day politique ak waa ji bi loolu amee immédiatement dafa ñëw ne ko lii ak lii moo xew sama jarbaat lii lañ ko def nangam ak nangam kooku jël en charge affaire bi commencé di woo organe de presse yi ak journalistes yi pour ñu porter presse loolu la woon. loolu la woon d'accord cette fois-ci AGS wax na def nañ sax conférence de presse. nee dañuy interjeter li nga xamante ne moom mooy moom mooy appel. ndax gis nañ ne euh, euh, en fait dañuy dañuy casser verdict bi pour chambre criminelle yóbbu ko ci instance euh, supérieure parce que gis nañ ne effectivement viole dafa am. yooyu boo ko déggee qu'est-ce que cela vous fait non xam nga gis nga la différence nag man ak ñoom mooy lan man mii dama nekk un patriote un citoyen sénégalais respectueux des institutions de la République gis nga bi affaire bi amee ba léegi est-ce que benn yoon am na ku dégg benn yoon am na ku dégg si torndur wax ci même à partir de la prison je pouvais parler puisque am na ay détenus yoo xam ne ci biir prison bi lañ nekk di wax xam nga waxuma ci j'ai pas résisté pour ne leen non du dem lii lañ may def jaaduwul nangam ak nangam dama leen bàyyi malléable et corvéable à merci ñu décider li ñuy décider ba yóbbu ma devant une chambre criminelle tout temps sa que le dossier là est vide de preuve. d'accord xam nga coow li boo gisee mu mu mu am nii même après le délibéré ñii dañ amul preuve bu ñu dugaloon benn preuve ci dossier bi kenn du ko waxati kon maa nga kaso. la dernière.